qui ont de ce conseil des ministres. <coughs> Mhm. Euh, lii day firndeel rek lii le président Bassirou Diomaye Faye waxoon donc nous serons dans la rupture te lii euh, dafa wone euh, tey ji nomination yi fi def ñun ñëpp xam nañu ci compétence bu sukkandiku. parce que mhm. si on fait le contrario avec des régimes yi fi jàll. bi ñu demee ba jël. Euh, yàlla def ñu jël pouvoir bi euh, la nomi les nominations se faisaient donc étaient subjectives saa dañuy gis ni kii il a travaillé wala gis na am na base après ñu am fuñ la dugal mais ku gis euh, décision yi génn démb di nga gis ni lii donc c'est c'est l'aboutissement d'un processus parce que yàgg suivre euh, actualité Sénégal par exemple si je prends le cas de euh, de Alé Niang euh, Alé Niang tey posture am euh, Barke Dembo Ndiaye dans la crise vraiment qui avait secoué le Sénégal tey ji traitement de l'information ni ñu ko ni ñu ko ci dafa il était équitable mën naa wax ni tey euh, il a sauvé Sénégal d'un chaos parce qu'il a euh, objectif il a été équitable donc dafa jiital dëgg citoyenneté tey jii nag bu ñu demee ba di vraiment jël suñu vitrine parce que la RTS c'est la vitrine du du Sénégal tey bu ñuy jël lu toll noonu di ko confier donc Pape Alé Niang damay gis ni c'est vraiment juste